ñu ngi ak Mouhamed Ngouda Mboup ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El waaw dafa am nag fi mu toll nii loo xam ne moom mooy ay di njàmbat ci mbirum Karim Wade. ay avocat am nee kat fi mu toll nii moom nag euh, mën na nekk électeur waaye tamit éligible na yow loolu yëpp nag nga ko jàngatee lu ci sa xalaat. waaw xam nga. bu ñu ko waxee dañuy dem avant ñuy ñëw ci Karim dañuy wax le régime électoral au Sénégal boo xoolee bu fekkee ni par exemple niñ la war a mën a fale wala niñ la war a tabe a dafa am lu ko lal mooy constitution bi d'abord te constitution bi ci tomb ñetteelu tomb bi dafa ni ki nga xamante ni war na mën a nekk électeur te war na mën a nekk candidat kooku il faut mu doom sénégalais am nationalité sénégalaise kooku il faut mu am fukki fan ak euh, pardon il faut mu am fukki at ak juróom ba pare du am daal maanaam benn gàllankoor ci ak yelleefam kooku bu boobaa noonu day mën a dem bindu ci liste électorale yi. mën a laaj baatu réew mi. wala mu mën a sànni xobam. fii nag boo jëlee ku mel ni Karim Wade moom wax ji mooy dañu ko daanoon juróomi at ca kër yi dañu ko daanee juróomi at nag moom dafa bëggoon a nekk candidat élection présidentielle waaye ba mu ñëwee conseil constitutionnel donc je euh, vingt le vingt janvier daf ne ko de mënoo nekk candidat mënoo nekk candidat parce que yow sa dossier bii de matul. matul parce que dafa war a am juróom-ñeenti pièces waaye ci juróom-ñeenti pièces yooyu yow juróom-ñett rek nga matal parce que yow amoo carte électeur moo tax te carte électeur ci pièces yi la war a doon waaye loolu bi mu ko ko waxee Karim Wade mënatul woon a bokk ci élection wax waaye dafa fekkoon ni code électoral bi moom ci article L32 tomb bu ñuy dafa dafa ni bu fekkee ni ku mel ni Karim Wade daan biñ ko daan du mën a nekkati ci eh, liste électorale yi lu dul. diir bu juróomi at loolu rek la loi bi wax fekk na booba ba CREI di daan Karim Wade CREI waxu ko ni ko yow say àq at yelleef perte nga ko donc Karim Wade mosut a perte ak at yelleefam donc moom carte électeur am la perte te loolu code électoral bee ko wax waaw code électoral bi nag pour bu dee Karim Wade daf ni ko yow juróomi at doo mën a nekk ci liste yi léegi juróomi at yooyu noonu bu jeexee moom la ñuy tuddee le relèvement de la peine ça veut dire que Karim moom ci boppam war mën na dem bindu. ñu defal ko carte électeur parce que yoon dàqatu ko te loi moo ko ko may te loolu mooy àq ak yelleefam donc Karim Wade mën na dem bindu ji ci liste électorale yi te su bindoo ci liste électorale yi day mën a doon candidat mooy maanaam mën na laaj. baatu askan wi ci élection yëpp muy local muy législative wala élection présidentielle. waaw ñi nga xam dañuy wax le contraire ñoom ci lan lañ sukkandiku. ah man xaw ma ko xaw ma ci lan la ñuy sukkandiku parce que tamit xam nga ñu bëri aussi mun ñu am seen argument bopp waaye soo liiree code pénal bi nga liir constitution bi nga liir code électoral bi di nga xam ni kii di Karim Wade Sidiki Kaba sax waxoon na ko moo doon garde des Sceaux je pense que nul conseil constitutionnel tamit musul la wax te Karim Wade dafa perte ses droits civiques dafa ne rek amul carte électeur te nee naa la code électoral bi dafa ne Karim Wade li ñu ko daan su matee juróomi at la mënut a nekk ci euh, liste électorale yi waaye juróomi at yi su su rek mën na ñëw nekk ci te juróomi at yi jeex na parce que ba ñu ko daanee booba ba léegi juróomi at yi passé na ko décision ba def décision bu def bu ñuy wax naan décision définitive maanaam ba ñu demee ba cour suprême te ba cour suprême décidé ba léegi boo ko calculer donc mat na juróomi at yu yées donc moo tax Karim Wade moom mën na dem bindu ji keneen ku wax nag leneen man xaw ma foo ko teg mais soo liiree en tout cas code électoral bi liir code pénal bi liir constitution bi da ngay xam ni dara mënu koo tere mu dem bindu li ñuy tuddee le relèvement de la peine amul benn gàllankoor te gàllankoor bi mu amoon wax naa ko sens moo doon ñàkk carte électeur te mën na wuti carte électeur léegi parce que mën na dellu ci liste électorale yi. am na ñoo xam li bi. waaw boo xoolee article trente bi waxul loolu parce que article L trente bi moom leneen lay wax boo xoolee d'ailleurs bu fekkoon ne article L trente bi day wax loolu conseil constitutionnel da koy viser conseil constitutionnel parce que boo xoolee moom moom moo moo gën a wax ci mbirum Karim Wade lan moo tax mënta ne candidat te conseil constitutionnel mësta viser article L trente bi waxu ci sax laalu ko L trente et sax la laal te L trente et un boo xoolee concerné wul Karim Wade ci condamnation parce que L trente moo ko concerné. Hmm. mu gis ni tey jii nii gis ni soo xoolee El Hadj ne xam ni tey jii la mu ñàkk woon man ci loolu laay sukkandiku moom la conseil constitutionnel wax te conseil constitutionnel moom muy saytu candidature yi pour élection législative ak élection présidentielle dafa ni yow Karim Wade li la manqué mooy carte électeur te carte électeur boobu noonu Karim Wade tey jii nii war na koo mën a jot parce que war na mën a dellu ci liste électorale yi en tout cas amul benn gàllankoor parce que conseil constitutionnel dafa ne ki nga xam ne mooy électeur ki nga xam ne mën na euh, ki nga xam ne mën na ci toog wala moom mën na dellu si tey ci liste électorale yi su boobaa noonu day matal donc li ñu ko laaj yëpp parce que perte ses droits civils et politiques boo amee say droits civils et politiques comme ni ma ko waxee ci article trois bu constitution bi li ko desee woon mooy carte électeur donc gisuma ban argument lañ ko mën opposé à part que nit ñi dañ ko amende parce que amende boobu war te te loolu je ne pense pas que ni loolu loi bi wax ko te donc loolu teguwul affaire la mais en tout cas parce que dañu naan d'inéligible pas d'inéligibilité sans texte ni d'inéligibilité au-delà des textes te textes yi waxu ko donc li textes yi wax tey jii nii moom recouvrer na ses droits pour nekk électeur gisuma lu ko mën a gàllankoor pour mu mën a doon candidat. mbirum Souleymane Teliko gis nañ ne kat euh, fan yëpp oo nañ ko ci IGAJ am sax ñuy wax ne dañ ko owaat tamit ci conseil discipline loolu yëpp yow naka nga ko jàngatee singi lii la mbala. waaw man li ma ko jàngatee mooy maanaam euh, Souleymane Teliko d'abord damay wax ni c'est un magistrat intègre man xam naa ko bu baax. Euh, li tax mooy booy jàngale décision dafa am magistrat yoo xamante ne am na décision yoo xam ne boo ko liiree di nga xam ne ñii kat franchement amal nañ leen jukkal je pense que Souleymane Téliko ci ñooñu la bokk. parce que nee naa am na fi décision de justice bu ñu mus a rendre bu ñu mujjee rendre rek ci l' affaire des faux médicaments dans l' affaire Wuri Diallo na mu ko bindee ak courage ba mu ca am da nga xam ni kiikat kat jëmmal na li ñuy wax état jëmmal na séparation des pouvoirs. waaye bu ñu fàtte ni tamit Souleymane Teliko du magistrat ordinaire parce que moom moo jiite donc kuréel yi nga xam ne moo ŋànk magistrat yëpp nga xamante ne foofu ñoom li nga xamante ne mooy donc seen i revendication wala li nga xamante ni tey jii mooy seeni i proposition foofu lañ koy jule muy union UMS union des magistrats du Sénégal bu ñu fàtte ni magistrats yi amuñu candidat amuñu syndicat parce que loi bi daf leen ko tere donc ñi leen mën a waxal rek mooy UMS te UMS boobu Souleymane Teliko moo ko jiite bu ñu fàtte loolu donc comme amuñu syndicat nag. ki nga xamante ne moo leen jiite loolu mais forcément dina génn di wax di jël ay position pour que même ñi nga xam ne mooy autorité politique yi dinañu mën a dégg di xam même magistrat yi même bu xamante ne tey jii nii lan mooy seen jooytu parce que ñoom dañuy def ay lël parfois man mii tey jii nii bokkoon naak ay lël ak ñoom yu ci bari mais tey boo gisee ni ñu ko bëgg a doxalee nii dafa mel ni kat dañu ko bëgg a jaay doole wala dafa mel ni dafa am deux poids deux mesures li tax ma wax ko mooy am na ñoo xamante ne ay magistrat lañu ñu ngi en position de détachement tey ba pare ñu ngi def politique te loolu yoonu Sénégal daf ko dàq yoonu Sénégal daf ko tere am na ay magistrats yoo xam ne détachement la ñu nekk mais nguur gi la ñu fare pourtant ñi ngi leen di nommer pourtant ñi ngi def politique dem bay créer mouvement te amul dara dara dara lu ci ministre de la justice wax waxu ci dara lu dul ñu leen di neexal bañ nañ ko ba dañ leen di yokkal même di leen yokkal ay nombal tànk loolu nag muy lu doy waar ci man parce que damaa jàpp ni bu ñu nekkee ci wàllu justice nekk ci wàllu yoon nekk ci dëgg dañuy tollale ñëpp. Souleymane Teliko man je pense que su ñu ko woowee nii nii di ko kii genre bundu xatal lay doon parce que man dama jàpp ni wax ji mu wax jarul ñu ñëw di ko ci yóbbu conseil de discipline parce que bu fekkee ni justice wax na ba am donc décision boo xam ni c'est devenu définitive mais ñoom na nañu apprécier surtout dans le cadre de l'UMS parce que Union des magistrats du Sénégal pourtant day def des propositions au gouvernement yoo xam ni c'est des propositions publique yoo xam ni pourtant day wax yoo xam ni c'est des critiques waaw su boobaa noonu day mel ni tey jii nii UMS même dañ ko bëgg a bâillonné pour que UMS même dootul mun a def sax des propositions loolu baaxul ci justice baaxul ci dëkk damaa jàpp ni nous voulons la justice mais dans la vérité maanaam bëgg nañu yoon mais yoon dafa war a lalu ci dëkk loolu daal xam naa ko te Souleymane Teliko ku mel ni moom ay magistrats yu mel ni ñoom dama jàpp ni c'est des magistrats yoo xamante ne dañ leen war a protéger mais waruñu ñëw di leen jéem a bâillonné. Mouhamed Ngouda boobu ñu la sant di la gërëm bu baax a baax. maa ngay gërëm di la fay. Nous sommes avec euh, Mohamed Moudombou. Bonjour. Bonjour, Elas Mali. Vous êtes enseignant-chercheur droit public à l'UCAD. Est-ce que Karim Wad est électeur et éligible euh, Merci, Elas Malik. Je crois que la question qui se pose, c'est le régime d'éligibilité des citoyens sénégalais. Notamment, il faut partir de la Constitution du Sénégal qui, à travers donc euh, l'article 3, précise que euh, tous les citoyens sénégalais âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. À ce niveau, pour euh, le cas précis, je pense que donc euh, Monsieur Karim Wade, qui faisait l'objet d'une condamnation donc euh, de cinq ans, alors euh, donc euh, n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle pour défaut de qualité d'électeur d'après le Conseil constitutionnel. Alors si nous regardons donc euh, réellement ce qui s'est passé et notamment donc la décision rendue par la CRI

quand même donc euh, à monsieur Karim Wade de pouvoir donc euh, se présenter à l'élection présidentielle pour défaut de qualité d'électeur précise carrément que donc euh, il ne pouvait pas être inscrit sur les listes électorales pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la condamnation qui devenue définitive alors entre donc la condamnation devenue définitive et aujourd'hui je crois bien que donc les cinq ans se sont écoulés et c'est expiré et donc il se trouve retrouver sur les listes électorales. Et du moment que c'est cette pièce qui lui manquait et qui lui faisait défaut, et donc il pourrait bel et bien donc être éligible à mon avis. Alors, ceux qui avancent le contraire se basent sur quoi

neuf pièces et neuf mentions. Karim Wade, il lui manquait une seule pièce pour être éligible et c'était la carte d'électeur. Et aujourd'hui, en ayant la possibilité de se retrouver sur, les listes électorales, il recouvre sa carte d'électeur et normalement il devient éligible. Donc je ne vois pas euh, réellement euh, sur quoi se fondent donc euh, arguments. D'autant plus que électoral, il y a un principe sacro-saint strict, c'est pas d'éligibilité sans texte, pas d'inéligibilité sans texte, ni d'inéligibilité au-delà des textes. Et le texte est très clair. S'il ne pouvait pas donc être sur les listes électorales, c'était dû à sa condition. Et aujourd'hui, je pense que les cinq ans étant expirés, donc je ne trouve pas donc euh, de moyen pour ne pas donc lui permettre de s'inscrire sur les listes électorales. Il devient de fait éligible à mon l'article L30, je pense qu'ils veulent être plus royalistes que le roi, parce que le Conseil constitutionnel n'a jamais, jamais, jamais, jamais invoqué l'article L30, dans la mesure où l'article l déjà parle donc sur les conditions de refus de l'inscription et donc parle d'autres choses aussi. Donc les personnes donc frappées d'une incapacité électorale à la donc euh, suite d'une condamnation bénéficiant d'une réhabilitation, euh, donc euh, ou bien ceux qui font donc l'objet d'une mesure d'amnistie. donc euh, Karim rendu par la CREI, il n'a pas perdu ce droit civil. Là aussi, c'est un problème. Vous savez, El Hadj Malick, dispositions ne sont pas conformes à la Constitution. La première chose, c'est ça. Autre chose, c'est que dès lors qu'on n'a pas prononcé la déchéance des droits, la personne, on ne peut pas lui interdire quand même de recouvrer ses droits. Donc, je dis bel et bien que ce qui lui manquait, c'était seulement la carte d'électeur, s'il parvient à se maintenir, comme l'a dit le Conseil ou bien à se retrouver sur les listes électorales, il redevient inéligible et il est rééligible à toute élection. La, la toute dernière question, elle est relative à l'affaire Souleymane Teliko. Alors, cela vous inspire quoi euh, que euh, je le regarde de près parce que moi, je connais le juge Souleymane Teliko et pour moi, je pense que c'est un magistrat intègre qui mérite du respect parce que Pour moi, l'une des décisions les plus emblématiques aujourd'hui, donc, a été rendue par Souleymane Teliko dans une célèbre affaire aujourd'hui. Et je pense que Souleymane Teliko aussi n'est pas un juge, un magistrat ordinaire. Il dirige, donc, l'Union des magistrats du Sénégal. Mais au-delà de ça, je pense que nous voulons la justice, mais dans la vérité quand même, parce que El je pense qu'au Sénégal, il est temps que l'on puisse donc euh, regarder quand même donc ce qui est en train de se faire, parce que là où Monsieur Teliko train quand même donc euh, d'être euh, auditionné. Voilà, il y a à côté des magistrats qui sont en détachement et qui font de la politique et c'est interdit par la loi et il n'y a aucune mesure qui sont prises à leur encontre parce que tout simplement ils sont du côté du pouvoir. Et je le dis et je le répète, vu et c'est connu de tous. Il y a des magistrats et même le magistrat on dit quand lorsqu'il est en détachement, même dans cette position, le magistrat est soumis à toutes les obligations. Alors qu'on a vu qu'il y a des magistrats qui sont du côté du pouvoir, qui font de la politique, qui ont créé des mouvements politiques et pourtant n'étant qu'en position de déplacement. Et pourtant, il n'y a rien euh, qui peut donc euh, justifier cela. Concernant Suleiman Teliko, et je pense que Souleymane Teliko a toujours donc euh, pris des positions mesurées, mais aussi dans le cadre de cercles restreints dans lequel c'est des travaux ou bien parfois donc c'est des communiqués. Et là, moi, je pense que quand même, donc, on ne peut pas bâillonner les magistrats en leur donc euh, interdisant de parler de la justice et sur la justice. Maintenant, tout le monde sait que donc euh, dans toute chose, l'obligation de réserve est là et l'obligation de discrétion professionnelle. Mais dès lors qu'aujourd'hui, il y a une mainmise de l'exécutif dans le déroulement n'est-ce pas Donc, euh, du conseil de discipline et dans le déroulement, n'est-ce pas, dans la mise en branle, n'est-ce pas, de ligage, on peut être donc tenté de dire que en réalité, on ne doit pas fragiliser quand même donc certains magistrats qui sont en train d'abattre un bon travail. Mais au-delà de ça, il faut de la sérénité dans la justice, parce que cibler certains magistrats et les traduire devant la justice et laisser d'autres magistrats qui pourtant au vu de tout le monde donc sont en train donc de fouler aux pieds les règles donc d'éthique et de déontologie, pour moi, c'est du deux poids, deux mesures. Maintenant, la question est la suivante. Qu'a fait et qu'a dit le juge Souleymane Et je pense que donc, euh, quand même, ce qu'il a dit pour moi, donc, euh, voilà, il n'a pas pour moi. Donc, euh, il n'y a pas péril en la demeure, parce que s'il sort pour parler de la justice, mais il en a le droit, parce qu'il représente l'Union des magistrats du Sénégal. Il ne s'est pas prononcé sur un dossier pendant devant la justice, mais il peut donner des appréciations. Et je rappelle que On a vu ici le procureur de la République critiquer une décision rendue par le tribunal de grande instance de Dakar en même disant que la, la, la décision était illégale et pourtant, lui aussi, il est soumis à l'obligation de réserve. Et je crois qu'il faut de la sérénité et il faut pas donc essayer de bâillonner les gens pour que tout simplement que les gens puissent être, n'est-ce pas, à côté de l'exécutif. Parce que pour moi, ce qui est en train de se faire, Donc euh, voilà, il est temps que la sérénité puisse revenir, qu'on laisse les magistrats travailler et que donc qu'on les responsabilise. Parce que pour avoir des magistrats responsables, il faut les responsabiliser. Mais on ne peut pas venir les museler comme ça et essayer que donc c'est par des conseils de discipline et autres qu'on parviendrait tout simplement donc à étouffer certaines choses. Ce n'est pas normal du tout. Mohamed Goudamoub, je vous remercie.